sa rakkat bi am ah. bi eh, lépp lépp boobu noonu lépp waaye duma lépp lépp bi nga war a lépp sax ban lépp la si lépp boobu noonu te ñu ñuy reer asalaamaaleykum <laughs> eh, gars yi maa ngi leen di jaajëfal di leen nuyu yéen yéen wax ni bu ngeen fi nekkee ba àjjuma samedi ngeen ñëw sam-sam waaw Sénégal 123 ah, show bi waaw bu ñu fi nekkee ba àjjuma man ñu ñëw fii après ñu fii voilà mais gars yi ku meeb ak ku dër bu ñu àndee di yëg si moto kan moo war a dawal ah ah ku dër ki moo war a dawal mais mauvais bi mooy ku dër ki mun a dawal ku meeb ki moo mën a dawal. te ñoom voyage bu ñuy def moto la ñuy yóbbu moto màggalu Tuubaa ñëw na yëg nañ seen scooter ku ñëpp ki mooy dawal ku dër ki mu ngi ci ginnaaw mais ku ne xam na ni yëmbal dafa leer boo duggee buun gën naa leer puut lamp yi day tàq yi du tàq boo génnee puut dugg nga Cees boo xam ne dugg Cees li te yëpp àll la amul làmp mais ku meeb ki day dawal ba si yàgg gis benn oto bii ñëw oto mais problème mooy oto bi benn lampe bi mooy tàkk beneen bi tàkkul ku meeb ki pour moom lii di ñëw moto la moto mais ku dër ki xam na ni lii oto la mu war ko wax booy lii oto la <laughs> si ku dër yow mu naan ko fiis o oh. sa waay di accéléré mu naan ko booy o oh. gaa yi ñu ngi ree lii <laughs> nga bëggoon ah gaa yi ngi ree fan laa yemoon ah ngeen jëf waa di accéléré booy bi naan ko ah sa waay di gën a jub oto bi xam ne muy gën a jege oto bi waa ji accéléré bi naan ko booy ah ah ah ba ne oto bi ñu yóbbu leen réanimation 15 jours mais yéen xam ngeen nga ku dër bu tàmbalee foo am àggale ko. ku dër ki daa yeewu jàkkaarloo médecin bi rek ne tola oto bi lay eggali noonu ab ak lan sax bala san ay eh alsan eh, alsan yow ñaaw rek mooy sa cat waaye ku baax nga barki sëñ Tuuba dangaa baax ah no kaay toog ah kaay waa jàpp si rek ah maa yëgu daal alsan yow nga yabaate de man ngay tëkkale sa bopp daan man war a joxewaat sax boobu gaa yi gaa seeteet walla sax lii nag yenn saa yi day dal di woykat sax woykat yenn saa yi mu woy ba si yàgg dootul xam lu muy woy muy woy xarit yi naan Amady Badiane waaye ku wut amin waaye da ngay def yenn saa mu woy ba inspiration bi naaw muy tudd xarit yi fekk daa fàtte lu mu war a woy sam doon liggéey ba liggéeyatul nan koy waxee ci français ah lan ah retraité étranger ok sam bu toogee day animé wu animé wu mooy wéet pour yéen ñu déggul français ah ah animé bu loolu mënuma koo wax sa papa ne day doxantu sama papa day doxantu ba romb Senelec mu fekk rang bi gudd sama papa rang bi moo ko jaaxal mu ñëw su ku mujj si rang bi nekk lan moo xew fii waaj ne ko fii dañuy fay courant sa papa génnee téléphone man la woo alors Zene foo nekk ma ne ko ma ne ko mi ngi nii ana Diop ma ne ko mi ngi nii ana ma ne ko mi ngi nii ana Aliou ma ne ko mi ngi ma ngi nii ana Fallou ma ne ko ma ngi nii ma ne ko papa lan la a ne bàyyi leen lu ngeen def ngeen fekk ma seen lelek ñu ñëw sa papa nag topp leen sama ginnaaw fexe leen ba kenn dugg seen diggante sa papa di dox di dox ba si giise bi waa ñu ne ko indil facture bi sa papa ne ko jaru ko ñuy ñëpp samay doom lan dépasse kër gi maa koy joxe compter xaalis nga jox ma ko. waaye nag non père fii ne courant la nay fay sa papa ne ko damaa raam accès sa ko wax fii fay courant électricité moom yaakaar ne boo rangee ba egsi rek dañ lay fay. comme man comprendre naa ma expliqué sama papa muy doog a comprendre mu ne ma jëlal ñaari kaar ñu ñibbi kon ñun bare woon nan ah ay sët am na ay sët sët yi dañoo ñëwaale woon ñu ñëw ba si yoon bi sama papa gàcce jàpp ko mu ne wàccal nga gunge ma kolobaan ñu wàcc buntu Pikine mais yéen xam ngeen ni oto yi bu ñuy yeb kolobaan mairie kolobaan la ñuy wax mairie kolobaan mairie kolobaan sama a taxaw te kolobaan la jëm ma sama problème mooy di 17 oto taxaw nañ yëpp mairie Colobane sama papa déplacé wul fu mu toog 18 oto bi moo taxaw apprenti bi cëpp naan mairie Colobane sama papa bu ma apprenti bi daanaka xanaa mairie rek kay dem ñun paa yi duñ dem paa yi Colobane paa yi Colobane paa yi Colobane mairie Colobane lu ma jotee ak mairie moom loo wax mu déggee ko leneen mu xëy daan ne day seeti géeram ma ne ko papa nit boo koy seeti xamoo si condition nga koy fekk. yóbbee leen sa passe aller ak retour sa baax ne passe aller rek lay yóbbu bu eggee giir bi moo koy jox passe de retour mu egg ñu ko sa giir bi daa voyagé. ka quatre mois la fa war a am. ku jigéen yëmbal ba almadi nga war a ñibbi te yoroo passe sa papa daa génn rond point almadi bi arrêté benn kalandoo nekk yëmbal laa jëm waxaale la ak borom kalandoo bi mais beneen problème mooy sa papa ba mu yéegee naka moo commissaire bi yëmbal bi ñoo sa sama papa yorul paas deuxième bi mooy moo commissaire bi ñoo bokk oto te commissaire bi xàmmee na ko moom nañ lay def sa papa ñëw na ba egg si Thierno Ndiaye xam ne Thierno Ndiaye ak ñëmbal soreetul mu ne borom kalandoo bi même ma wàcc borom kalandoo moom jàpp na ni sa papa bu wàccee da koy jox paas sa papa daa wàcc rek daw. commissaire bi fil topp sama pap sama pap lu mu wàkki commissaire bi yëmbal bi suul ko sama pap lu mu wàkki commissaire bi yëmbal suul ko borom kalandoo bi wàcc topp seen ginnaaw pour bu commissaire bi récupéré xaas bi ko ko mu dëpp ñibbi léegi sama pap lu mu wàkki commissaire bi yëmbal bi moo koy suul borom kalandoo bu ñëwee moom mooy sulliwaat kàmb yi léegi day mujjee doon wàkki suul sulli wàkki suul sulli wàkki suul sulli sama na moom nee na taxaw pour commissaire bi yëmbal jàpp ko benn yoon sama pap day dem bay taxaw rek commissaire bi yëmbal ne ko kon neel nga daw maa ak yow ñoo yem yor nu paas. ak merci beaucoup